dal leen ak jàmm mbokk yi safoo chaîne chaîne youtube bi di suñu buzz tv lu soxal mbirum kii di général Moussa Fall xam ngeen ni nag boobu ba tey ñi ngi gis ay information yuy circulé di wax ni rek moom général Moussa Fall dafa daal di feebar feebar bu metti ba tax sax ñenn ñi di wax ni rek jamono jii kat moom mu ngi ñu hospitalisé rek ci benn po hopital fii ci réew mi waaye tamit ñenn ñi daal ni moom général Moussa nekkul ci ci réew bi waaye tamit ñenn ñi daal di wax ni sax kii di général Moussa Fall dafa amee rek lii di AVC waaye tamit ñenn ñi daal di rek moom général Moussa Fall jamono ji daf jamono ji dafa daal di handicapé ba tax na bu ñu sukkandikoo rek ci waa Mouhallim info ci xabaar yi ñu bëre la moom général Moussa Fall démb nag daal di nañ koy gis rek ci foofe ci centre international conférence Abdou Diouf ginnaaw bi ñuy amal rek forum international sur la paix gis nañ fa rek kii di général Moussa Fall mu mel ni kon xabaar yooyu nga xamante ni wax nañ ni rek kii di général Moussa Fall dafa daal feebar feebar bu métti ba ñu hospitalisé ko loolee kët dafa mel ne lu ñu mel rek dafa koy daal di weddi ndaxte buñ ko gisee rek foofee ci centre international conférence Abdou Diouf kon la muy tekk rek kii di général Moussa Fall moom mi ngi ci wér gi yaramam.